Malick Fall dafa dafa available day dem ci ay dëj ay ay ay ay ay sarax yaa ngi dégg di dem foofu noonu ay ngénte ak yooyu noonu yéen waru leen a soxla loolu bu fekkee ay dëj ay ngénte da ngeen di remercier ñi nga xam ne ñoom ñooy imaam yi ak jàkka yeeg yooyu waru leen a soxla yooyu yéen déedéet yéen da ngeen a war a da ngeen a war a soxla lu doxal dëkk bi kanam. ki chaque fois koo xam ne bu toogee bu toogee benn bërëb. day wax naan man kat aw ma doole da ngeen di jox ñu am doole ñu yóbbu dëkk bi non c'est vrai xoolal marché bi ah boo cekopee boo cekob boo boo euh, naka lañ koy waxee boo xoolaatee marché bi da doon génne quatre-vingt-dix-neuf par an naaw léegi buñ demee ba ci kanam léegi marché bi fu mu toll nii mënatul a génne hauteur boobu noonu marché bi benn douche moo fi am si je bien.